njëriñ la ci lislaam bi loolu waral lépp luy taxawaayu état danañ ko def ci sa wet ba nga ma ko waxee it ne woon nañu lii nga xam ne xëy na gouvernement la waroon tegu kon boo ko yëkkatee def ko sa liggéeyu bopp def ci sa alalu bopp def ci alalu mbokk taalibe yi faaw gouvernement bi feelu la ci yenn mbir yi mooy lépp lu jëm ci yoon yi woote naa léegi laata may ñëw fii ak benn weer dinañ mën defar tali incha allah ci biir ak li ci biti defar assainissement yeggali école de formation professionnelle waaye it waxtaan nañu ak sëñ Ahmadou Badawi ci sa ndigal nan la gouvernement bi di liggéey ak complexe bi ngir ñu jàppale leen ci charge yi ndax université lu diis la te université bu amee ndong yi fu nekk lañuy jóge ci àdduna bi bu ñu jàpp rek ndong yi nekk ci biir Touba wala biir Sénégal ndax université fi turam di yegg mooy tax ay réew danañ fi yónnee seeni doom ngir ñu ñëw sàkku fi xam-xam loolu nag dañ ko war a waajal préparer ko ci dëkkuwaay ci lépp donc moo waral ministre de l'enseignement supérieur ne woon naa ko mu ñëw waxtaan ak yéen ñu xool dëgg-dëgg nan la ñuy accompagner maanaam gunge liggéey bi nga xam ne Sëñ Muntaxa def na ko àdduna bi yëpp teg si bët ñu nit ñu gunge ko ci wàllu woowu ñu rafetlu it lool formation yi niñ ko tëggee professeur Moustapha Guèye wax na ko professeur Lamine wax na ko muy UFR yi ci wàllu wér yaram ci wàllu mbéy agriculture ak agro business ak ci yeneen wàll yi technologie fa am solo ñu tàggat xale yi ci lislaam waaye jàngal leen métier te am na yaakaar ne université bii dana am lu bees lu mu indi ci Sénégal loo xam ne suñuy iniwersité amuñu ko mooy ni ñuy tàggatee ndaw ñi ci worma ci yar ci diine ak ci fonk sa bopp fonk sa kilifa loolu université bi dina ko indil Sénégal te yaakaar na lu ama am solol donc loolu nag sëriñ bi dama doon wax rek ni niñ ko doon defee démb ak barke démb fas yéene naa lépp loo sumb muy liggéey boo xam ni njaboot gaa tax nga yëkkati ko wala askan wi walla diine ji di ma fekk sa wet ngir loo yëkkati rek ñu jàppandoo ko ngir gunge la ci liggéey boobu incha allah daañu ko def ba ci centrale solaire bi nga xam ni war na mën a tax université bi moomal boppam courant bañ a fay courant fas yéene nañ la si jàppale ba nga xam ni loolu it dana nekk ay ngëneel ci ni université bi war a doxee ak bëpp xeetu subvention ngir jàppale leen ci doxalinu université bi lu ci des nag mooy sant njaboot gi yëpp njabootu sëñ tubaab bu ma tuddee xalif bi sant naa tudd naa ñëpp kon maa ngi gërëm ñëpp ñu fi teew di leen sant di gërëm mbokk taalibe yi di gërëm tam diplomate yi ñëw toogal fi seen réew ah di leen wax ne rek Sénégal lépp junni at l'islam dugg na fi lépp junni at kon réew l'islam la te yaakaar nañu ne daara ju mag ji dana génne ay borom xam-xam loo xam ne ci luy jëmale lislaam ci kanam la ni ko Al di defee ni ko université bi jiitu muy Al Xarawin ci Maroc defee ak yeneen i foyer ardent yoo xam ne ay foyer diine lañu danañu dégg ëllëg université bu Touba bokk ci université yi gën a mag ci àdduna bi loolu mooy suñu yéene fas yéene nañ daal gunge la sëñ bi di la ziar. di ñaan yàlla mu bàyyi la fi nga yàgg fi lool di ñaan nga ñaanal Sénégal yàlla yokk fi jàmm yàlla yokk fi xéewal yi sunu borom it defar nawet bi ñu dëgmal ah, mu nekk nawet bu barkeel bu ñu muurloo loolu moo doon kàddu yi di la sant di la gërëm wasalaam